asalaamaaleykum mbokk internet ñu ngi leen nuyuwaat bu baax a baax di leen ziar di leen joxaat seen wàccu waay ñaan Sénégal yàlla fi jàmm yàgg ñaan way dawlu yi suñu borom yërëm leen te xaar leen te àjjana fi daw si ñu feebar tëdd si hôpital si suñu borom fëgg seen borom borom may si mbër nag si xale seet si moom duñ ko perte ko bàyyi mu nuyoo Mor nuyu naa fay naa la ansu billah ina wala yàlla jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba waaw maa ngi sant sama su mag si maa ngi koy sant bu baax lu may lu ma lu ma war na wax moom laa si war na jiital ndax li nekk si man moo ko def maa ngi koy sant bu baax gis naa entraînement yi yi ma entraînement loo gis naa tamit li mu def sama yaram di ko wax ne combat bi moom la moom la xamoo rek boo nekkee stade yenn saa yi da ngay fàtte sa xel day fot ndax kontaan gu ëpp maa ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax a baax di sant Didier di sant euh, ñoom Moussa waaw coach Moussa maa ngi ko sant bu baax ndax moo doon defar loxo yi loxo yi sax jotuma see jotuma see laal nii waaye mooy loolu waaw. Mor Kankang ñu bëgg a xam kan mooy Mor Kankang Mor Kankang lan moo ko dugal si làmb. waaw Mor Kankang lu ko dugal si làmb fekk ay magam di bëre rek ak tamit mu doon doomu mbër nijaayam tamit di mbër muy Cheikh Mbaba waaw ak Zallo waaw. Mor Kang Kang la njëkk a takkee ngemb Ndakaar a takkee ngemb wala Bawol la njëkk a takkee ngemb. Ndakaar la a takkee ngemb. fan si fii terrain Mandé waaw. loolu ay booy la yooyu moom fàttali ko bébé ëmm daal laa si jàppoon waaw beneen booy bu ñu doon wax euh, non booy moom fàttali naa ko. bëri naa fi quatre combats daal. non wala euh, la woon. yëpp waaw. tere mande waaw. mbapat Mor Kang Kang fan la ëpp li mbapat waaw booy xool côté njurbel bi noonu côté yooyu la ëpp lu mu mbapat waaw mbapatu bëri dóor waaw nag bu ñu demaa woon sax mbapat yooyu day métti ndax dañ naan teg nañ fa cinq cent mille wala teg nañ fa ñaari nag bu ñu demee cinq mille léegi bu ko defee sa passe day jeex doo mën a tourner ñib si koy rayante rek ba jël ko waaw est-ce que si dëkku àll ay côté Fatick Kaolack est-ce que Mor daan na fa wàcc simple waaw foofu moom bëree guma fa Dakar daal laa bëree mbapat ak côté Fissel Mbadaan gi côté yooyu daal bëri naa fa mbapat waaw. Dakar fii nii fan nga ëpp li nga mbapat gaal gi Adrien Senghor wala Iba Mar wala. fii terrain gaal gi. terrain fii mu naan. Euh, arène nationale. waaw dem naa fa ñaari yoon. benn bi maa ngi ñàkk quart de benn bi tamit maa ngi ñàkk troisième place waaye yëpp nag dañ ma génne tirage. bi nga njëkk euh, ma xool. sox-sox waaw waaw waaw beneen bi ku la bi kii Kaw Gourdin moo ma génne waaw ñaar ñi la génne ñëpp ay ndaanaan lañ comme yow waaw ay ndaanaan ñu gënoon xam Mor xaaj bi yëpp xam Mor si lutte avec frappe ñooy jékki-jékki gis Mor wàcc arena ñun fi mu ne mbapat sax bu amaatee nii instant yii dañ koy dem bëre de fi mu ne moom ñun bëre moo suñu liggéey kon yàqal nañu suñu liggéey ñun dañ ko war a def fu ñu dégg mbapat dañ fa war a dem instant yi moom dañuy dañoo bëgg a si supporters yi bu ñu paree saafanteeg euh, sama papa yeek sama yaay yi doog a dugg si àll bi. waaw loolu nekk simple bi ñan la si Mor Moussa laale ñi ñi daan Mor wala Mor daan ñi. non amul gisuma ko ci nga maanaam fii ne bëreeguma ak poids lourd yooyu yàlla xam na ne. ñan la Mor daan ñuy pourvu si arène bi wala ñoo xam ne daan nañ Mor Kang ñuy pourvu si arène bi. daan nañu Mor Kanka noo gisuguma ko. Mor ñan la fi daan Mbappar ñu professeur Arène. man Mbappar moom damay dem rek man moom fi ne xàmmee mu bëri. yàlla baax na sax ñi ma doon ñi ma doon bëril Arène ñi nii yàlla xam ne tonnerre mi ak caaw mii moo leen xam ndax euh, dama leen naa dem leen ngeen xool ko waaw yenn saa yi sax ñu wax ma mbër ma ne leen kan mooy mbër moomu ñu ne ma yow xamoo kenn. dama gaa mi ngi noonu nga dégg ko koy Mor Kanka fi mu départ si Mbappar fi mu ñëw nag si lutte gerte gi sa premier combat arène fan la woon kan la kan moo ko tëggoon sama premier combat arène euh, benn ñaari combat yi ngoogom la waaw prési moo ko tëggoon waaw Modou Mbaye doon ko reporté benn bi Bekkaay di ko reporté oh, mu nekkoon yàkkante premier combat ni man ak carrière ak fët beneen bi ak man ak fët fët waaw ndax ñun laaleen nanu laaleen nanu waaye sama mbokk la sama lépp la dari nag Euh, gars yi mooy loolu balaa ñoo ñëw fii dañuy rayante de. waaw dañuy rayante ci àll bi moom ku jeeku moom rey sa morom waaye nag bu ñu ñëwee fii moom amul problème waaw. saa sampur bawol bawol bi dafa taxaw waaw. nga àll bi ñëw fii sa troisième combat Dakar fii. man nag euh, Issa Tine moo ko tëggoon. Jéy euh, waaw. victoire. bi nga si jugee sa quatrième combat nag yaakaar naa. Morlam. Morlam waaw. nga ma demaat si benn dugg foofu yoofaat xaw ma zo zoro la xaw ma. bu yoof. waaw waaw. nga dal si ma dal ci eh, John Kara. waaw. jóge si John Kara dal si kan. booy yëmbal kii ma naan Lozod. Euh, Lozod benn waaw. Lozod ban bu yarax. waaw. Euh, dal si Lozod sax boobu maa ngi si Henri Mbindi. Euh, Henri Mbindi benn. waaw bi nekk Caaro yi. waaw. moom Kara. waaw. waaw. daje kii nii. Euh, boo yëmbal mi waaw. sa diggante boo yëmbal lan la coow li bari na avant combat bi ba bi combat bi ba après combat yaa ngi coow lan la. non combat bee ko laajoon ndax ñaari ndaanaan bu ñu dajee forcé combat bari coow tamit ñëpp tamit kenn ku ne da am confiance sa mbër waaw dañu toog combat boobu dañu toog soxla mun sax caatu ngéwél dañu toog caatu ngéwél la des na beneen booy pare gu ma si bawol bawol moom caatu ngéwél wax waaw ne Fallou Ndiaye jox ma combat bi Fallou Ndiaye jox ko combat bi ma toog Fallou naa ma xanaa da nga ragal waa ji ma ne ko ragalu ma ko de staff bi laay waxal rek di wax ak staff bi di wax ban na ma jëlal ma jël combat bi. ñu toog ñu teg si combat bi dem dem dem dem ba un mois mu dégg ay rumeur fu mu dem ñu ne ko baaxul mu delloo combat bi waaw moom fu mu dem ñu ne ko baaxut waaw fu mu dem ñu ne ko moo mën mooy loolu tamit euh, mu topp di laaj bawal bawal yi gis nga bawal bawal yi dama la bëgg xam ne ñi muy laaj ñooñu du ñuy moromam du ñuy moromam na jëlu yoonam ñooñu jël seenu yoon man bawal bawal yi laa fi nekkal de man man maay caatu bawal bawal yi. yaa man maay caat mi. waaw bàyyiwu ma fi kenn nag waaw samay morom damay bëri ak ñoom ba ci kanam. moom moo delloo avance ñun dégg nañu yaa ko delloo. man du ma delloo avance. Mor dañuy waxtaan man ak barke Seydina Mouhamad laa la gënal. avance nekk nii. bi ñu ko jëlee. mu dem mu daw. fàllu na ma xoolal keneen ma ne ko fallu man sama ngor mayoo may xool keneen ndax man sampion la koo mu indil baax na mu contacté boo yëmbal boo yëmbal na ko baax na loolu xéwal la. waaw booy yëbal moo loolu waaw booy yëbal na ko loolu xéwal la dama fe damay freiné booy bi maa ay si ñooñu ma ne ko man ñaanuma yàlla freiné heure bii waaw boo yëmbal nga ne ko li nga wax waroo koo wax lu tax nga ne li mu wax waroo wax waaw ah, bawal bawal yi booy xool magasin yi fi dàq ak kër yu rafet yi bawal bawal yee ko moom waaw dugal moom bawal bool yee koy jox rek moom bawal bawal yee koy jox moom koñ ba mu dëkk bawal bool yee yëkkati seen xaaj ko jox kon warta wax loolu dafa dem ba si digg digg bi arrêté boobu ndax nee sama yaay altu ndangam la dëkk kon xam ne loolu war ko wax moo tax ma ne ko war a wax loolu. kon juumte day am. waaw juumte day am kenn moom ñëpp moom nee nañu euh, mënoo di wax te doo juum waaw juum moom day am. cool yi bari ñi ne boo yëmbale mën ñi ne Mor Kang Kang nga mën waaye ñi pour ñëpp dañ ne boo yëmbal moo gën a ñor xeex waaye Mor Kang Kang nga dàq bëri. Euh, keroog dama la bëgg a xamal ne su ma neexoon su ma neexoon sax su ma neexoon daan naa ko nag soxoruma waaye dama bëgg a xam ne boo ndi woon xeex sax ma dóor ko mu nelaw boo ndi woon xeex sax ma dóor ko mu nelaw man damaa gëm li ma doon te dem ma seqi tànku ginnaaw mu tànku kanam rek ndax li ma bëgg dama see war a dem ba jeex moo tax ak mbooloo mi ma indi kon waruma def benn fot ngeen ngeen dox latalaar ma dox latalaar ma xam ne kii moo loolu du ñëw ma ma dox wuti ko mu jéggat heure bi jox ko avertissement mu ñëwaat ma ne kii daal combat bi day yàgg dafay nekk te man mbër mu ndaw laa li ñuy xaar si ñun dañ ko war a wane. moom lan la moom moom mag moom ma jiitu si lam ndax booy xool euh, bëri nag gàkku ndongo ndongoloo ñi mu bëreel bari na te boobu ñu bëreeg ñoom man bal yàlla xam ne combat yi seetaanu ma ko. billaahi ñii daal ñoo ko saan ay ñoom tonnerre ñii ak ñoom caaw. waaye booy yëpp kenn mënul see wax ban ban combat lañ ko bëree fii nii waaw. ma xam ne daanaan la waaw yàlla may ma tamit ma xam ne di ko sant yàlla bu baax a baax a baax. waaw damay sant yàlla bu bari sant sama ñaari sama ñaari waajur maa ngi koy bu baax a baax a baax a baax. arbitre sifflé ngeen mu ñëwaat nga cokkaas daw coppati tànk waaw dama ko mu gëm. dafa gëm wax ne daa daa mën a xeex xeexkat du gëm xeexkat da lay xool da liir gars yi kenn mënta xeex fii xeexu mbedd la rek pëtëm pëtëm mooy loolu ba jàpp waaw fii xeexu mbedd la kenn mënta xeex Modou Lo ngi nii sax bu bu xeexee boo xeexee moom yenn saa day riir indi ay diir laaw ay laawam mooy loolu. waaw mépp mu gëm ma jegeñ tànk bi na ko coppet ni ma dale si kawam nag moo am doole am na doole de waaye ni ma dale si kawam moo am doole ndax xam naa ne maak moom combat bi si song lay jeexe ku njëkk a song si morom daan nga ko. ay bërekat ngeen ay bërekat la ñu. waaw ñaari bërekat moom ku ci këf sa morom mun nga ko daan wax naa ko nag si biir wax naa naa ko man maf laa ndax maf day day toll sa kaw di seen ginaar si suuf. lu mu fa fekk nii la koy def. yóbbaale moo tax. sant nañ ne moom indi na si doole. waaw indi na si doole sonn na si torop wax dëgg ku naqaree bëreel la. nga ne ku naqaree bëreel dama ko xam. sonn naa si combat bi lool. combat bi dem naa ba desewu ma dërëm. adversaire yi nga doon bëree adversaire bi am nañ différence. waaw am nañ différence. am nañ sonn naa ci wàllam galaaj bi combat bi yàgg na. xool combat bi yàqu nañu euh, chaque jour mu demee ba war a bëri man ak moom ñu ne corona bi dugaat na mu yàqu affaire yi tamit mooy loolu bitéel yooyu noonu ndeysaan da nga koy mujj sotti ko seetiwaat yeneen bitéel. waaw waa mu méttee si yow la méttee moom. waaw waaw moom moom de. boo xoolee moom boo xoolee kanamam góor it nga xam ne dox na sonn na si lool waaw. li ko ko wokk moo ko wokk. waaw moo ko wokk de. moo ko woo ko de moom waaw ah, man waaw moom xureeku na moom moom kay loolu la war na def moom moom moom du def leneen lu dul loolu xureeku ah. ndax booy xool moor moom stade bi nga bëgg koo daan si biir bi loolu moom du yomb moom. moor moom stade bi. waaw nga bëgg koo daan si biir stade bi loolu. loolu du yoon. moor foo jëlee stade loolu du yoon booy xool booy xool yéen sax da ngeen a bañ a wax rek waaye boobu xam naa yéen a ngi naan moor yàlla bu mu daanu. Eh. waaw ah loolu du wax. ah moo ngi noonu de képp ko doon bawal bawal daal di nga wax loolu. waaw ku bool bool. di nga wax loolu. kon bool bool bool bool yi lay waxal waaw. moo si tuus mi dafa am ñaar loo tuus première tuus bi danga ne ku xëwoon nanga nga wàcc borom tool ñëw na. waaw lu waral loolu. kooku doolay Baye Fall la. waaw seex Cheikh Ndigal doolay bay Fall la. te répression bi daa des ndax andiwu ma waaye bu ma andi woon sama. Racim bu ma néewoon Racim wala Racim naa lay génneel kon xam naa boo defee mi si suuf lu ñuy kaw lu ñuy fàq di ñëw si suuf. non loolu dama toog maag sama doom nday ma koy woyantu mu jekki jékki ma ne ko doom nday loolu neex na de mu ne ma temps la ma ne non fi mu nekk loolu mënut a fee dem maanaam damay damay xalaat rek. loolu mën naa nekk waaw damay xalaat. yow yaa ko yow sa ko na nga waaw ma ma waaw. léegi ma jekki jékki ndox gi dëb rek daj gi gi ca gi jët gi cer rëdd waaw yaa ma gën a xam waaw ñun moom danoo yare danoo yare ko géwél waaye du géwél gaa moo ngi noonu nag noonu la demee ñun ñëpp benn lanu ñaareel bi Mor Karamale fu mu jóge waaw ah, Karamale maa ngi ko sàccee woon si benn euh, njool njool théâtre kat waaw jibi jibi si si laa ko sàccee woon mu def lu garaaw mu mu neex ma nag ma toog nii di ko woyaantu affaire bi neex ma toog nii di ko woyaantu ma dem géej gi fajar dal di jóg bi ma jógee laal ko laal ko saawaay na ma temps la nan si dem waa ñu dem si. kon saawaay moom du wekk day daaj. noonu non du wekk day daaj. non kii kii kii sama mag la. tamit sama grand la sama lépp la daanaka maak moom comme morom ndax ñoo bokk maak moom ñoo maak moom kese ñoo bokk néeg yenn saa yi man ak moom jàppal bàyyil bëre si. si lal beeg mooy loolu kii daal dama jàppoon ne bu na bu amoon jabar sax bëgg ma xam naa xam naa te mënoo kan ku bokk. Eh, waxi dof gëm naa loolu noo Mor wax nga waxi dof de. waaw gëm naa <laughs> wax nga waxi nag Mor. ah eh. mooy loolu. mooy loolu kii moom aw ma fayam. aw ma fayam mi am fay yàlla na ko yàlla fay rek. Ah. waaw. Mor bu la du la gis nga fay ko droit de terre waaw jibi si moom waaw loolu moom temps de. Ah. loolu moom temps la. <laughs> waaw kooku maanaam kooku fecc bu garaaw la. day boo koy tëgg sax tëgg mi du neex. Mor loo loo ko fekk ka koy tëgg. non bis bu ànd ak piano. ba ànd ak euh, asiko yi. piano waaw Risa Mbalag yi bis bu ko demee. oh xam naa ne loolu day fay de. waaw kooku dafa kooku temps la kooku temps la. yaa kooku temps la. sama gars ngi noonu nag. doomu Bawol la. jugeen jugee si Bawol ñëw Ndakaaru daan doole lamp dab ko. waaw mu ngi noonu muy doomu Bawol. Mor nga def ñaata combat arène. def naa neuf combat arène. neuf victoire neuf fan la jëm. Mor fi ne nan ko jox nan ko jox si gaa yu baax yi ñu bëri ñoom fi mu nekk. gaa baax ñi comme ñan. waaw gaa ñu baax ñi moom duma ma tudd tur ndax euh, barki euh, dem keroog ba keroog bi ma bëree si guddi gi ba léegi ñoo ngi sonal Sëwru Fall. promoteur yaa ngi sonal Sëwru Fall laajuma kenn nag ku ma Sëwru Fall na ma temps na ma kii baax na ma ma wax ak bi bu ne ma nee baax na ma jël ko. combat bi ñu doon laam-laamee ba tax nga mu mu delloo avance nga jëli boo yëmbal xanaa boobu bu ñëwaatee pare nga pour bëre. combat ban caatu ngéwél diggante caatu ngéwél. diggante caatu ngéwél. non man ñaanatuma yàlla euh, tournée man kanam rek. li ma ko li ma ko waxoon rek. nee ko bu jeexee rek jeex na. na combat boo xam ne ma Samba waxul ma Demba man maa wax sa dama si assumer sama responsabilité sa diggante Dame Sène. loolu staff bi bu ñu waxee rek buñ ci waxee rek man dinaa. waaw dama ne Dame nga sigi ree. non buñ ci waxee buñ ci waxee rek moom euh, incha allah xoolal gi day am. xam ma dama bëgg sa diggante ak Dame Sène nekk ñaari ndaanaan yoo xam ne da ngeen di sonk. waaw loolu dëgg la waaye morom dama la bëgg xam xamal ne moromam jamono ji ma toll moom moromam mënut bëree woon rek mor. jot na mor jot na mor bëree grand combat. jot na. jot na moom boo xoolee boo xoolee mbooloo mi. waaw waaw boo xoolee daanaka li ma topp. Mor foo ko duy boo ko duyoon Iba Maar su ma ko duyoon Iba Maar nga xam man dama la bëgg xam ne kenn mësuma jàppale bolok yàlla xam ne laa la jàppale kenn mësuma jàppale bolok. ana autorité yi nekk fi. ah moo ngi noon de ñoom ñun seen doom lañu ñun dañoo war a gestu ñun dañoo nekk fii sonn lu fi am ñun nekk ci taq si rib kon ñun dañoo war a séntu doomu aadama yi ñuy jàppale si àll bi ñun nan ñu ko jàppalee ñoom man loolu rek di ñaan di leen wax na ñoom yàlla ñu fi yàgg te wér waaw. paa yi nga xamante ni ñoo nekk Colobane ak maire yi Colobane yëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm ak booyu ndaw yi ñoom ñëpp maa ngi leen di sant waaw di wax ne jàpp nañu si combat yi bu baax a baax a baax a baax a waaw. waa Bawol seen fay tund Bawol boo déggee Bawol rek bu ma limbee damay juun tund Bawol laa wax li nga xamante ni képp koo xamante ni doomu Bawol Bawol nga yaa xam ne maa lay wax ne gis naa ñaan yi di leen wax ne nanu gën a jàpp affaire yi moom mooy loolu waaw yaa ma gën a xam am na benn vidéo bu nu dugal TikTok sama gaa yi ñoo ko dugal waaye loolu garaawul euh, làmb moom nii la rek yenn saa yi nga coow li bari yenn saa yi nga dugal dara ñu naan warta def li warta def laa waaye nag làmb moo ko wuyoo waaw yenn saa yi moom coow moom mënta ñàkk. waaye nag loolu noonu dama si jégglu di tuubaat bu baax a baax a baax a baax a baax a baax ndax vidéo bu sax ñoom gars yi war ñu ko dugal su ma xamoon dañ ko dugal mm, du ma sax wax loolu noonu kenn xamut euh, mooy loolu waaye daal maa ngi ciy jégalu maa ngi ciy jégalu di leen wax ne képp koo xamante ne ni rek vidéo bu gis nga ko mu naqari la maa ngi ciy jégalu bu baax a baax a baax baax a baax loolu dootul am moor moom morom ñëpp la Baye faal la taalib Serigne Abdou Karim Mbacké la kon bëñ bu weex rek barke Serigne Fallou képp koo xam ne daal yéene laa loo xamante ne lu bon la yàlla na këpp sama kaw man yéene wu ma kenn ñëpp jàmm laa leen yéene di wax ne kilifa diine yi yàlla na fi yàgg te wér Serigne Abdou Karim Mbacké yàlla na fi yàgg wér waaw ndax lu ma ko ñaanu may ma ko fii nag moom lu ma ko ñaan mu may ma ko. billaay wallaay man xaw ma lu tax waaye man maa ko bëggal sama bopp waaw. trompeur nu ngeen mën a nekk trompeur moom loolu lu yàgg la. loolu sunu ña ñaari papa la. ñoo waaw ñoo daan an uh-huh. waaw nu ma koy yeddee. Uh-huh. ah prend ya prend waaju waaju baax la de. waaju baax la de man ak moom de mooy loolu mënuñu réeroo. di sant Cheikh Chinois maa ngi koy sant bu baax moom jàpp na si affaire yi sant Lay Bébé di sant Baye Massamba Mor di sant Sang Sang maa ngi koy sant bu baax a baax a baax di sant Dégol Dégol bu Ngoy maa ngi koy sant gis naa li mu def di sant Granate bu baax a baax a baax a baax Dégol bu Ngoy maa ngi koy sant bu baax gis naa taxawaayam gis naa léppam barke Serigne Fallou yàlla mi nga am yàlla mi am fay yàlla na ko yàlla fay bu baax a baax baax di sant sama nijaay Jéey. jéy maa ngi koy sant di sant Abdou Sène ñoom ñëpp maa ngi leen di sant di sant Fallou Ndiaye gis naa gis naa taxawaayam si man maa ngi sant ñëpp daal su ma limba damay juum di sant sama mag Allah ñoom Daouda Ablaye Fall ñoom Omar ñoom Samba Cissé waaye njiifun Pal gépp dañ maa ngi di sant di sant Maas bu Patra Sène maa ngi koy sant bu baax sama doom nday gis naa teranga ji ma defal Maas maa ngi koy sant bu baax a baax di sant mbay guy gi yàlla na ko yàlla may ndam ndax ku baax la doo Balla Lour bu baax a baax a baax ak Baye Badaak père Maxi Maximène Maxi maa koy sant sama coach nit day juum nit day juum maa ngi ciy jéggalu bu wér maa ngi jéggalu moom xam na moom xam na man xam naa li may jéggalu moom na ma jéggal bu wér a wér a wér di sant ay booyam yëpp maa ngi leen di sant waaw di sant nag sama grand Balla Dia maa ngi koy sant di sant Axma ñoom maam jib mafia boobu ak waa waa cité Imbisine maa ngi leen di sant waa cité imbécile maa ngi leen di sant Talla Bouraca Omo Fayam Son góor gi Ndiaye ñoom Pape Sam mafia bépp ñoom Tafa Mbaye gars yi yëpp maa ngi leen di sant barke Serigne Fallou di leen sant bu baax baax ne leen foofu dama fa am mafia am mafia di sant waagu waagu maa ngi koy sant bu baax a baax a baax Omo Fayam yàlla mi am fay yàlla na ko yàlla fay waaw di sant euh, gars yi fi toog yëpp maa ngi leen di sant su ma limee damay juum mafia mère Binta Faye maa ngi leen di sant bu baax a baax baax baax. ok ok jërëjëf. di bëggewaat ñi ko koy ko ñaan di bëggewaat ñëpp ñëpp joxaat ñëpp seen wàccuwaay di di nuyu nag mbayaar yi ku lu koy teg jeexal rek maa ngi bëggee bu baax a baax di jox sa wàccuwaay. bu mafia maa ngi leen di sant mafia yi maa ngi leen di baax a baax a baax waaw di sant maa ngi koy sant bu baax a baax gis naa li mu def gis naa kontaan naa ci trop barki Serigne Fallou Cheikh Tine di ko wax ne jàppal rek te nga jàpp booy yi bu baax a baax a baax booy yi say nit lanu say lépp lanu ok waaw di bëgg waat ñëpp rek kooku di bëgg waat nag ku ko teg jeexal ma fi am mbayaar gi maa ngi leen di bëggee bu baax a baax di jox da sabar wala waaw sabar gi bis bu koy def rek dinaa leen woo da da nga koy jàpp nga day teel waaw ay la samedi laa koy jàpp bët sëti dimanche yee lépp dinaa ko mooy loolu yin daal ah. dinaa la woo yow ah. mooy loolu day mën na la lépp lay am piano ki lépp sabar googu kër yomb. dina mel ni tànn béeru banaana de du daan daane. na si bawal bawal jàpp. xam na li ma li ma leen defal dafa rëy. nañ si jàpp bu baax a baax a baax a maa ngi nag indi leen drapeau bi léegi képp koo xam ne fépp fu bawal bawal nekk rek maa ngi leen indi drapeau bi léegi léegi léegi waaw. waaw yéen bawal bawal yi nag wuyu leen Mor Kang Kang ñeen ñi nekk post caaray Colobane fu ngeen munti nekk di bawal bawal wuyu leen Mor Kang Kang du sama di samay wax ba si ñi si kaw. waa diplôme yi ma jox. dama si sant de sama diplôme yi lii ñaari ñaari coupe la woon. benn coupe baa ngi fee beneen baa ngi nii ak trophée bi waaw lépp maa ko jël. waaw lépp maa ko jël. non li ñuy wax li ñuy wax li ñuy wax nee naa xama dama dof si endo. <laughs> waaw boo déggee boo déggee am na benn woy bu garaaw bu ma jàpp. mu ne ko baatum meetum meetum meetum meetum baatum meetum meetum meetum meetum kooku boo ko déggee kooku boo ko déggee maanaam loolu mooy sama xol sedd na waaw sama xol dafa sedd bu baax a baax a baax a baax a baax di samay wax nag waxi Mor Kang-Kang la di bëggee nag kenn si man ndax mënu maa ñëw Colobane ba ñibbi sa nuyu ma ko donte fii la nekkoon tey mu dem tukki ñu koy wax Cheikh bu ndaw ñu koy wax Cheikh maçon maa ngi koy bëggee bu baax bu mu ne Cheikh bu ndaw nag Koña de xam na ko Tonnerre xam na ko Cheikh Colobane di ko bëggee bu baax a baax di ko jox wàcc waam di wax na ñen ñi yàq der na nañ ko bàyyi yàlla mi borom jàmm la sax ku mu jàmmal nga am jàmm yàlla yàlla defal jàmm ndax garabu jàmm ndoxu jàmm boo ko arrosé dël di dee beneen émission ak beneen champion fii si SBT Média kese rek dong lay doon mbëri yàq der nag nañ ko bàyyi